arrestation laa fa gisagum deux arrestations déjà si côté religieux yi ndeysaan dégg naa ñu ne nee na nañ ko baal ñii gërëm nañ nga dul waaye nee na nañ ko baal noonu la toll c'est un grand. wuy ma dama ne c'est un grand déedéet alxuraan daf ne. way da xatumul jaahiluun xaalu salaaman. melo muy lim meloo ibaadu rahmaan alladina yamshuuna al ardi hawnan wa ida xaatamul wa ida xaatamul jaahiluun xaalu salaaman bu ñuy wax ak xam dafa réer yow da teg sa police gendarmerie tam jël benn imam gis naa ko dem ma ndeysaan ak kaalaam ndeysaan mu toog simple nga ñëw tëj ko fenn ngand ngand lu defe na yaa jàpp imam bi ndax dana homosexuel la te yaa fi indi sa yaa fi indi homosexuel nii ne ñu duñ ko wax jàpp tëj ça ne sert absolument rien ne baal leen ma ñu baal ko mu dem lan la koy wàññi nit ku rëy la teewul muy ku mag ci yàlla teewul muy ko baax teewul muy doomu nit ku baax teewul mu dëkk fu baax teewul mu def imam imam bu naafequl nag imam y a des soi-disant faux imams yuy défendre homosexuels yi dégg naa leen fi comprendre imam waaye yuy défendre blanchon yana bëgguma taxaw ci ay ay amuñu xam-xamu imam amuñu jàngu imam amuñu comportement imam amuñu njubug imam loolu mooy dëgg kii wax nii imaam la dem naa ba gis ko na ne leen baal leen ma ngeen ñu bàyyi ko mu dem parce que suñu borom dane boo dajee bi muy tagg euh, melokaanu ibaadu rahmaan def ne buñ dajee jaahil moo ñu réer ñi dañ leen leen jàmm rek li ñu bëgg rek ma wax leen ko di dem sama yoon illaa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bihi sadran fa alayhim min la donc yonent sa sallallahu alayhi wasallam bi kii ñëwee ne ko man de euh, nag ma baal euh, parce que dañ ma contraindre ba wax la wax yu ñaaw dina bu ñu la ko defatee rek wax leen loolu mais bu ñu la jàppee yóbbul di karaj nee leen wax leen Sonko mu baal ma comme Sonko buur di mooy wax eh, jàppal diw eh arrête ça eh, baal ma bàyyi ko mu dem mais bu génnee nga xam li nga xam Modou Bousso Dieng nga xam li mu xam te man moom daggal fii ma wax la li ma gëm. d'accord dama ne leen bu Sonko muccee fi mu jaar ci gendarmerie fañ ko jàppee ci gàncax gi ku ragalati ku dul yàlla gëmoo yàlla fii laa ne. ni plus ni moins ñeneen ci dañuy sonn boo demandé ma. kon man nag <laughs> rus naa ko man du ma sonko man sonko maa ko gën a dëgër téeméer si yow man maa njëkk li ngay waxee nii dafa mel ne yaa ngi projeté hmm? ma dama ne la kaso. un Moussa Fall ma jël si woon sama kër toog naa fi défendre Moussa Fall loolu mooy noblesse nit day am esprit de dépassement comprendre nga donc président Abdoulaye Wade bi ma arrêté woon.